alors Oustaz kii nag moom dafay laajte mu ne lan mooy li nga xamante ne moom mooy tey nit koo xamante ne dafa fen ba yàq li nga xamante ne mooy relation ñaari nit Oustaz. fen ba yàq ay diggante. waaw ci lislaam laaj boobu de tontu moom xam naa dina soxal ñu bëri tey ci réew mi. ay ko yaa <laughs> lay tontu ci loolu. luy loolu. képp ku fen ba diggante yàqu alaaji Pape safaraay sa kër. Hmm. parce que fen mooy bàkkaar boo xam ne. Hmm. question yi ñu posé yonent bi yëpp bi ñu ko koy posé fekk ko mu nekk ci benn position changé wul position bi yonent bi fekk nañ ko mu soonu nii ñu laaj ko question bu ne ci wàllu diine mu continuer nii mu soonoo tëdd di réponse di répondre mm-hmm. waaye keroog bi nu ko laajee ni ko Seydina Muhammad est-ce que jullit dina fen mm-hmm. alaaji Pape saxaaba yi nee nañ yonent bi dafa jug toog defaraat toogaayam ne al mu'minu laa yakzibu jullit du fen ñu ne li waral yonent bi jug toog moo lay wan ne li muy tontu ñor na ko mu ne jullit du fen parce que fen yonent bi dafa wax ni dafay tax nga nekk saay-saay te saay-saay dalay yóbbu ci yéeféer te yéeféer du dem àjjana <coughs> te am na fen yu foor yu dëgër yu tooy xepp yoo xamante ni loo dëgër dëgër jooy déggoo ñu ni malaaka yi lenn lañu ñu ci àddina mooy fen waaw est-ce que xam nga ni saa yu nit ki fenee day mel ni sople lañu xolli ci bëtu malaaka yi mhm. dañuy mel ni ñuy fat waaw ah, waaw seen rongo di di di tuuru nee na malaaka yi noonu la leen fen di def est que saa yu nit fene kaw asamaan day am tremblement de terre mhm. asamaan si day mel ni lu yëngu parce que yàlla bëggul nit kuy fen mhm. moo taxoon mu ne qulil xaq walaw kaana ala nafsi waxal dëgg donte sa bakkan daf ciy des léegi alaaji Pape nga fen ba yàq diggante foo jëm xanaa nungu siin wala safara rek loo dëgër dëgër jooy <coughs> nekk ci diggante di fen ba séparé ay nit mm-hmm. ku koy def na ko bàyyi mm-hmm. Pape jullit moomul fen te léegi Pape nit ñi dañuy fen bay gëm seen bopp ci fen yi ñuy fen duñ ko tey maanaam dangay ngay fen yow dem ba dangaa gëm fen yu ni dëgg la fen ba dee ñu fekk la safara nga ñu daa am ko doon seet si. mi ngi noonu pap lii fi xew di fen matin soir. Eh. dafay dem ba fen dafay nekk ci sa deret. boo demee ba wax dëgg sax du dëgg. Mhm. mooy nit ñi nga xam ne seen jikko dafa yàqu ba su ñu doon wax ak nit sax nit fekkee ko dina la woo ba nga ñëw mën a la defal attention ci diw. Mhm. mbaadu ay waxam ñu wax ñu ne julliwul. loolu gor gu ne war nga koo bàyyi kon fen ba yàq diggante fa la ñaawte fi am la ca nekk ci bàkkaar kenn xamul nu mu toll mhm. parce que wax naa la léegi ma ne la iblis balaa bëgg yëg ñaar ñu doon ànd ba mu yàgg àndatunu mhm. te saa yoo fenee nag ba yàq diggante jàppal ni bokk nga ci njabootu iblis mhm. ndax liy dëggal iblis ci loolu ngay xëy famille de iblis yéen a bokk même fonction établissement iblis <laughs> inauguration bi kañ la ñoom <laughs> waa kër iblis diwlin iblis <laughs> état Iblis TV. <laughs> établi établissement Iblis ñi ciy xëy daa bari képp koy fen rek. employé nga ci société bi. patron bi mooy Iblis. macha allah kon nanu moytu yàq diggante. Uh-huh. te mboolem diggante boo mën a wax lu rafet alaaji Pape nga wax ci lu rafet. macha allah mu ngoog donc loolu leer na itam eh, ci eh, question.